réaction bi daal Saint-Louis la amee ñun dem nañ ba àgg lu mat vingt personnes laaj nañ quatre cent cinquante mille mu ne def ñu yóbbu Espagne xam nga dem nañ ba mardi si guddi trois heures quatre heures du matin mu ne gaal gi defa paan nekk biir ndox mi après si la nañu nañ nañ dem làqu bala ba set nit ñi dañuy gis bu suba gi jotee nit ñi dañuy gis ñu lax marchandise meeg essence beeg yooyu yëpp ba léegi nii buñ ko woowee duñ ko jot te encaissé na suñu xaalis am na yeneen nit yoo xam ne jawbe lañ dëkk dama trente personnes cinq cent mille cinq cent mille lañ encaissé mais ñun quatre cent cinquante mille la ñuy encaissé waa Louga ñi lu mat vingt personnes mais dafa am ñu bokkaloon nekk foofu ndaxte ñooñu si dil bi lañ bokk ñoo doon ñoo doon ñu jàppale bagage yeeg affaire yooyu noonu ndax suñu xel gën a ñaaw daf dañ ne gaal gi mu pour yóbbu si gaal googu da koo sàcc looloo tax affaire looloo tax sax ñun ñu am si lu ñu leer mais kon ba léegi ni ñun ñu ngi toog di xoole mais boroom gaal gi lañ dégg ñu ne gaal gi da koo sàcc moomu ko affaire bi daal nii la demee waa ji maam Fall la tudd nañu jox suñu xaalis wala mu teg ñu si aks nañu teg si yoon bu leer wala mu delloo ñu suñu xaalis tax tey quatre cent cinquante mille neexu la baal si jamono ju metti ji mais ñun dañoo toog am benn copain boo xam ne si comme li ma la wax ñi daw ñi doon daw deuxième ñooñu moom ñoom ñoo ànd ndaxte dañoo tasaare si yeneen kër nekk nañ fa affaire bi mardi si guddi la am mardi bi passé mardi mardi passé mardi la am si guddi yi léegi daf nañu toog leen xaar gaal bi ba ngi ñëw léegi ñun ñu toog ay vingt trois heures lañ dem si si tefes bi toog xaaru toog toog ba ay trois heures du matin gaal bi ñëw mu daw romb ñu daf dafa dafa daw noonu si ndox mi raw romb ñu daay jubal bël bi mu jubalee bël bi ak diggante bël bi tefes gi daal foofu la gaal gi taxaw si biir ndox mi sori na dañu ni tors après mu jokkoo gars yi mu àndaloon ñi ma la doon wax naan moo ñu booleeg ñoom dañoo fekk ñu ne bu ngeen bëggee dem am nañ gaal day dem waaw mais affaire bi bu mu siiw affaire yooyu noonu Espagne lay def direct kenn ki nga xam ne moom la ñu njëkk dalal si këram nag tey jii doon naa jokkoo moom téléphone mais dafa daw deuxième li ma wax daf ne ma moom waa ji dafa bëggoon a dem comme ñun ñu bëgg dem da ko jox xaalis ndax moom ma ngi koy topp xaalis moom it saint la mais ñun dellu nañ Louga instant bi xamante moom dafa am suñ benn booy boo xam ne si Louga la dëkk mais dafa nekkoon di liggéey léegi wax ji ñëw si moom ne ko soo gisee ñi bëgg a dem man sama gaal tëgg naa gaal dama bëgg dem si événement bi booy bi moo ñu booleeg moom booy bi sax daf na woon mën na ko mën na ko yóbbaale mais booy bi nangul woon ndax daf na parewul léegi affaire bi noonu la demee ki nga xam ne si mu ngi dëkk Saint-Louis kooku daf ñoo dalaloon si këram première bi njëkkee wàcc seen yi foofu la ñu laaxoon këram la ñu yóbbu woon moo tax ma xam nga bu ko xamul woon du ñu nangoo du ko nangoo denc du ñu nangoo yóbbu si këram à la am na beneen kër bu ñu dencoon am nañ ñun dimanche lañ fa njëkk a dem dimanche lañ fa dem non samedi lañ fa dem dimanche altine talaata talaata si guddi instant bi ñun mercredi si suba lañ lañ delluwaat Louga mu expliqué leen ne wax leen wax leen client yi nañ dem ba suba ngeen denc bagage yi ndax gaal mu nekk nii neexul a génnee dafa dafa dafa bëtt te dafa di léegi dégg naa ñoom dañoo fay génn bàyyi fa gaal te gaal gi gaalu jàmboor la si liñ liñ jot dégg dana tool benn instant boo xam ne si bëgg a tekki daan la jaral lu ne te ñun wallaahi la toog fii lu ne liggéey bu ne liggéey nañ ko amul liggéey buñ liggéeyul fii Sénégal mais mooy loolu te xam nga dana tool benn instant nga nekk nga nekk say nawle xam nga ñuy dem di ñëw te yow amoo benn njëgu huit cent bi ñun ay quatre millions ay cinq millions buñ ko amoon sax yàlla def na mën nañoo toog fii liggéey ñu bay wala ñu def leneen mais amuñu ko da dem na benn essence sax proposé woon nañu pour moom mën nañoo dem ba Maroc ñu dugg bateau wala mën ñoo def nii am na numéro yu mu doon ñu wax naan gars yi dañoo nekk ak moom Espagne buñ laale soonu Espagne bi rek waaw ñooy ñooy wax marin yi ñu ñëw jël suñu affaire yoon yooyu yëpp xam nga te ñun affaire duñ ay lébu nday njaam njaam ñu si ëpp affaire bi la demee Seex koñe man miinu ndar mais Angata la la